Lamine Yamal mu defaraati yi gëñëm ba mu rafet lool ngir préparer préparer euh, lii di classico bu mu ci gaay gars yi Barça Real ndekete yow Real Madrid dugal na lu toll ci juróom-ñaari bitt wala juróom-ñeenti bit ci li nga xam ne mooy ñeenti match yi mujj football mais Barcelone dugal na lu toll ci fukki bitt ak juróom-ñaar ci ñeenti match yi mu jot a football wala bokk yi mu mujj football gars yi taarixu ñaari équipe yi ndànk-ndànk may leen ma nopp def seen i abonnement coppate ko ko defee ma ànd yéen euh, information wérte wóor Real match bi mu mujj football uh, ci ñeent yi wala ba mu njëkk a football ci ñeent quatre derniers matchs yi Lille la footballal uh, fële ca terrain bi Lille Lille dóor ko 1-0 mu daal di dóor Villarreal à domicile 2-0 uh, dóor Getafe Celta Vigo à domicile extérieur 2 buts à 1 à domicile mu door dóor mun barki démb Euh, juróom ci ñaar loole lépp bu ñu ko xaymaa naatable ko ma di dugal na ci lu toll maanaam juróom-ñeenti bit encaissé lu toll ci li nga xam ne daanaka moo nekk euh, bu ma juumul ñeenti bit séngam bu ma juumee ngeen jubbanti ma. ndekete yoo lii lépp da ngeen ko war a xam ndax ko bi xam naa ne da ngeen koo yombal mais musuma koo yombal. kon ci côté boobee mënees naa jàpp ni maanaam ci benn match ci biir match yi ngeen jéggal ma merengue yi mais ci préparation quatre derniers match yi ah, neexul ba neexul mais Barcelone yaakaar naa ne fi mu toll nii mi ngi lakk ay piccam ci kaw loole tamit nekk lu ama am solo ci li nga xam ni moo nekk taarixu ñaari équipe yi di euh, classico boo xam ne mi ngi war a am samedi 19 ci nee naa leen dispositif yi leen si Aladji Malick jëlal benn la ci yi nga xam ne yaakaar naa ni da ngeen ko war a xam ñu dem ci Barcelone nag ma jàpp ni nag mi ngi mujj fut quatre derniers match yi nga xam ni football na ko Young booy Barça ko dóor 5 bi euh, cinq à 0 maanaam Barça dóor Deportivo Alaves 3-0 euh, dóor li nga xam ne daanaka mooy Séville cinq 1 dernier match bi mujj futbal Bayern na 4 buts à 1 loolee lépp boo ko doon xayma ci ay bit yoo xam ne Barcelone dugal na ko ma jàpp ni toll na ci fukki bit ak juróom-ñaar séngam ci ñeenti match yi am lu toll ci ñaari bit yu mu encaissé gars yi neexul ba neexul nag euh, bu ngeen xoolee ñaari match yi xool ñeenti match yi mujj football préparation moo a baax ngeen jéggal ma merengue yi nga xam ne tegal naa leen ko ci table ji loolee nag nekk na lu am solo waaye merengue xam naa dañ naa ma alaaji Malick yooyu yëpp maanaam am na wóor na wér na mais nag buñ demee ba Santiago Bernabéu yu quatre vingt ci Santiago Bernabéu yu yaakaar naa ne xalaatoo dara ci sa àdduna nekk loo xam ne faral di ma reeloo sax mais peut-être maanaam Barcelone gu bees ma gis moom franchement parler du ma ko nëbb mais am naa confiance ni wax dëgg yàlla bu dajeeg Real Madrid du doon match boo xam ne bu yomb la ci merengue yi xam a seenu football kat ngeen gis ko Lamine Yamal Lemzo ngeen gis ko nag taxawaay bi nga xam ne am na ko mais Lemzo dafa commencé maanaam defar boppam wattuwaat maanaam defar bëñ yi defar bagage yi lépp rek ngir man a waajal mais man lii dama ko bëgg ci match quoi man dama bëgg football bu amee ñi koy football ak supporters yi ñëpp àndandoo maanaam di rajax-rajaxi kenn ku ci ne am looy préparé ndax lii classico bi def ko manqué woon maanaam changé ay godage def yëpp yëpp yëpp yëpp yi nga xam ni moom teg na ko ci taabal ji ngir lan bu bëggee dajeek merengue yi mu nekk match boo xam ni nañu xam ni du yomb benn yoon ndax moom moomee wane na ko moom Lamine Yamal di fàtte li ni Lamine Yamal cadre la ci équipe boobee ñett ñi ëpp lu ñuy dugal ci ay bit foofee ca Barcelone il fait partie euh, ma doxe fa nag mën leen a wan ba Real moom waddal na li nga xam ne mooy groupe bi mu war a yóbbu uh, ca boobee match Andrelien ak Ferran Gonçalves ak uh, ki nga xam ne mooy Sergio Mestre moom it mi ngi ci biir gardien yi Eder Militão ci défense yi ak uh, Lucas Vázquez moom it bokk na ci li nga xam ni moo nekk défense yi wale ko Fran Garcia Rudiger Mendy bu ñu demee ci militaire yi Bellingham Eduardo Camavinga Fede Valverde Modric Tchouaméni Choupo-Moting Arda Güler Ceballos attaquant yi ki li nga xam ne mooy Vinicius Modric Endrick mi ngi ci biir li nga xam ne mooy attan attan ak kii la di Barahim Dias